sëriñ Habib Bossom, Nyunyar, ñaar ak mbokki délégation Bidémon Feki, le préfet de Tivaouane le gouverneur le ministre de l'intérieur son excellence monsieur Antoine Félix Antoine Abdallah Djom.

jaarale ko ci ministre de l'intérieur ak département ministériel yi concerné gàmmu Tiwaawan ñoom ñëpp it kenn ku ci ne lu ñu waroon a def def nañ ko xanaa ñaari fan wala ñett rek la ñuy yëg ni Tiwaawan am na problème mu ndox te ndox bu defarul gàmmu gi bu amul mën na caa yàq jéem nañ ca lu bari nag waaye bi ñu demee ba ci suba ñu ngi yëg ni robinet yi ñu ngi doon xor-xoral te ku ne xam na ni gan bu ñëwee gàmm si bu amul ndox rek mu waaye yàlla def na ci seen mbaax ak seen ñaan ak ñoom ñii seen itte bu ñu itti bis bii nga xamante ni boroom daf ni woon fas naa yéene su ma koy defati ku ma am mu ñëw fekke ko moom Seydil Hajj Malick tabarakallahu nu ànd ko ak ñoom préfet bu Tivaouane gouverneur u Thiès monsieur Alioune euh, euh, Alioune mbeng ak kii nga xamante ni tey moo ñëw représenter le chef de l'État ñu wax la itteem bi mu joyal pour bëgg rek yéene président mottaliku ndax bis bi daf ko itteel xaritam

depuis les ordres du président, du ministre de l'Intérieur, de tous les sujets à travers laquelle ou lesquels les, ces institutions devaient passer. sëriñ bi lépp motali nañ ko moo tax du nu guddal te bis bi dafa gàtt te ñu ngi jëm ci yeneen i jataay ci guddi moo tax ñu yemale ko foofu ñaanal ko yàlla moom mi waaye sakku ci yow nga ñaanal ko ñaanal président de la république yàlla mottalil ko ay mébétam ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoom la seqal liggéey bi muy le premier ministre son gouvernement et tous les autres toutes les institutions de la république yàlla defal nu ci barke borom guddi gi di sayyiduna muhammad gàmm goo xamante ni bu nu fi jógee Sénégal dana ca déparé économiquement ci lépp loo xamante ni ittey askan wi la defar ko na mu gëne wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Seydi Mouhamadou Moustapha jërëjëf kàddu yi rafet na waaye Sénégal yëpp ak sa kër maam Cheikh Seydi El Hadji Malick ñu ngi lay gëm ci benn baat lu xam ne foo toll yaa ngi koy wax mu neex kër gi yépp ak jullit yépp ni fii benn baax rek moo fi ne mooy Sidi Aboubacar ibnu Alaaji Mansour xalif général Tijani samaam Sidi Aboubacar si nee joxe cër du tee am cër kon nag si noo ngi lay gërëm ci loolu ak di la yàlla may lu gudd fan yàlla may lu wér li nga bëgg yaag Habib nu yebal leen Habib ibnu kan ibnu Seyd Mouhamadou Mansour borom daara ji loo teg di doom waaye rek maa ngi koy wax Cheikh Ahmed Tidiane léegi ibnu Seyd Mansour borom daara ni doom nga de waaye it jarbaat nga Habib it loolu it moom la doom la waaye it jarbaat la léegi nag damay jox sama jarbaat Haj Hamid dafa am list bu xam ni daf ko ko jox moom ci boppam mu yëgale list boobu ma soog a jox ki ci tegu mu jël kàddu jërëjëf ci délégation ministre de l'Intérieur M. M. Aline gouverneur de la région de Thiès madame Teneng Faye adjoint gouverneur région de Thiès Mamadou Gueye préfet département de Tuawan, le commissaire de la ville de Tiawan, madame Seynabou Touré présidente du conseil départemental de Tuawan, M. monsieur maire de Tuawan, Pape Songé Djouf, maire de responsable politique INEC du département de Tiawan. M. Aline ci monsieur Badara Diop secrétaire général adjoint du gouvernement M. Mahmoud Diop secrétaire général du ministre de la fonction publique monsieur Landing Sonko chef service régional de l'assainissement de Thiès monsieur le capitaine Taifour Sané Bagan, adjoint inspecteur chef de service régional des eaux et forêts de Thiès Lolo moi, liste bi nga Younenoko pour nous compléter ñi nga xam ñoo and ak monsieur le ministre de l'intérieur. jërëjëf Abdoul Aziz. bismillah léegi nag. kuy ab kuy sénégalais. dégg nga relation yi suru kër maam Cheikh Seydi El Hadji Malick am ak borom ci asante ba ci doomam ju baax ji Mohamed 6 di relation fraternelle. relation diine ak lislaam moo tax nu ni nañu jox kàddu gi notre ambassadeur l'ambassadeur du Maroc vous avez la parole waaw tabarakallah suñu Babacar ambassadeur Maroc waaw waaw al maghribul aqsa nga xam nga xam ne relation alaqa diggante Sénégal ak Maroc alaqa waaye tamit euh, diggante kër njaboot Cheikh Hadji Hassan II. ci diggante ak Cheikh Hadj El Hadj Ba ñu may wax tabarakallah xam na loolu mu demoon Maroc mi ngi jël kàddu gi ñu jël kàddu incha allah incha allah. bismillahi rahmani rahim. wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaïn. Euh, je voudrais dire un petit mot en français euh, avant de switcher en arabe. Euh, Excellence, Monsieur le ministre, de l'Intérieur et de la Sécurité, Excellence Félix-Antoine Jom, euh, euh, Excellence euh, Monsieur le ministre de l'Artisanat et à côté son frère et notre frère, le ministre de la Culture, bien entendu, et le ministre des Sports aussi, bien entendu, mes salutations les plus respectueuses à Cheikh Mansour Si. Euh, je voudrais saluer donc euh, toute l'honorable euh, audience et j'ai à côté de moi une forte délégation venue du royaume du Maroc et qui a été dépêchée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste dans la droite ligne de la bonne tradition qui a toujours été, euh, qui a toujours caractérisé les relations entre euh, nos deux pays frères, euh, le Maroc et le Sénégal, entre nos deux peuples et surtout avec les familles Sophie du Sénégal, la famille Tijane mais aussi toutes les familles Sophie de ce beau pays, frères et amis. Je voudrais, euh, si vous le permettez, m'acquitter de deux devoirs. Le devoir euh, de euh, vous féliciter d'abord pour la commémoration de cette fête, voilà, grandiose et glorieuse pour tous les musulmans dans le monde et vos frères au Maroc partagent avec vous la, même fête dans les mêmes circonstances et depuis des siècles. Et c'est aussi l'occasion donc de transmettre euh, nos salutations les plus distinguées, les plus différentes, donc à son éminence, euh, Cheikh euh, Abou Bakr Mansour Si, et aussi à notre frère euh, cher euh, Mohamed Mansour Si. Donc, euh, vraiment, c'est l'occasion de leur transmettre les salutations et la sollicitude de leur frère, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, et leur souhaiter longue et, heureuse vie, Inch'Allah, au service donc, de la paix, de l'entente et de, du vivre ensemble euh, au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Parce qu'ils prennent vraiment la cause de la paix, la cause de la fraternité entre les musulmans et les non-musulmans. Il s'agit des valeurs que nous partageons et dont chaque musulman doit s'enorgueillir. Euh, c'est évidemment également l'occasion de transmettre nos félicitations les plus respectueuses à son Excellence le Hajj président de la République sort du Sénégal. Euh, et nous lui souhaitons euh, plein succès dans sa noble mission, donc à la tête de l'État du Sénégal. Euh, enfin, je voudrais, avant de poursuivre en arabe, euh, vous dire euh, bravo. Bravo pour la belle organisation de ce grand événement. bravo pour la qualité de l'accueil. Et bravo pour la maîtrise du programme annoncé et aussi et surtout pour la Teranga, pour l'hospitalité légendaire de Tivawan et l'hospitalité de tout le Sénégal. Euh, si vous le permettez, je vais dire quelques mots en arabe, qui est la langue euh, officielle du Royaume du Maroc. Mais aussi, je peux vous dire euh, que, personnellement, j'ai été impressionné, je suis impressionné par la qualité de la maîtrise de l'arabe dans cette ville sainte. Les arabophones de cette ville n'ont vraiment rien à envier aux arabophones euh, qui ont la langue arabe euh, comme langue maternelle. Euh, vraiment, euh, encore une fois, euh, bravo et voilà, et bonne continuation. بول سيداتي سادتي أود في البداية أن أتقدم بالشكر بالشكر الجزيل للإخوة أولا فضيلة الخليفة العام الشيخ أبو بكر منصور السي وكذلك آه، أخوه آه، سي محمد منصور السي على آه، كل ما قدموه لنا من تسهيلات من حسن تنظيم واستقبال وكذلك أتقدم بالشكر طبعا لرئاسة الدولة الممثلة في سيادة الرئيس الحاج ماكيسال على كل آه، تسهيلات وكل ما مكننا من الوصول في أحسن الظروف لهذا لهذه المدينة الكريمة المضيافة ثم بالمناسبة أريد كذلك أن أتوجه بالشكر إلى كل السلطات على كل المستويات هنا السلطات المحلية المحافظة على كل المساعدات المقدمة من جهة أخرى لا أنسى أن أتقدم لكم بالتهاني القلبية بهذه المناسبة العزيزة مناسبة عيد المولد النبوي الشريف الذي نتقاسم الاحتفالة به منذ قرون فالاحتفالات التي تتم هنا تتم في المملكة المغربية وتتم بكثير من طبعا من الامتنان ومن التكريم لمولانا آه، رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك لشكر الله الذي اختارنا لهذه الرسالة الكريمة السامية ذات الأبعاد الإنسانية الكبيرة فنحن هنا آه، آه، وفد كبير يتكون من صفوة من علماء المملكة آه، وأعضاء آه، المجالس العلمية وهي المجالس كما تعلمون التي آه، تتشرف برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي تلعب أدوارا طلائعية في الحفاظ على هويتنا الروحية وعلى آه، يعني آه، قيمنا الإسلامية في إطار آه، الدين الذي اختاره الله لنا فوجودهم هو تكريم من جلالة الملك لهذا البلد المضياف وهو تكريم كذلك لهذا الحفل الكريم الذي نتمناه إن شاء الله ناجحا وموفقا ومستمرا ان شاء الله بكل الرسائل الانسانيه التي يحملها ونترحم بالمناسبه على الروح الطاهره لسي آه، ابو بكر لسي مالك سي الذي احتفلنا قبل ثلاثه اشهر او احتفينا قبل ثلاثه اشهر بالذكرى المئويه لوفاته فلروحي الطاهره نتمنى ان شاء الله آه، الجنه جنات الفردوس الاعلى آه، شكرا لكم جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما شاء الله موي وحدو ام سولو يو خامني آه، بو ياغ دوخ ماروك اك ما نتو وخه ديغنتي Euh, ni mu apprécié li ko Maam Xaaj Maalik ak leen ak yéen dalal yi leen dalal. exactement tamit ni mu nawee seen jikko nawee ko seen xam-xam muy lu am ay ak tam nee di ko gën a impressionné ay arab lañ. nee na jabol Cheikh Xaaj Maalik li wax arab da ngay yaakaar ni arab nee na ñoom Maroc loolu lu leen impêché moo tax nee na ñi ngi xalaat liggéey bu ñu war a liggéey ci wàllu xam-xam ci wàllu mbind nee na tam riwaaya riwaaya warsh bi tam ñoo ko bokk ak wàllu tasawu tabarakallah macha allah ñu déglu ak amas xel du dem ci benn dëkk dëkk ba la ñuy dem xel yi ci sunu maam Cheikh Seydi Hadji Malick góor googu xam nu mooy waaja samp jàkka di samp ay juma fab tànkam te ko foog sax nga ba tegoo rasulullahi ak Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ak Cheikh Oumar Foutiyou daan wax ni bëgg naa fii ba ca góor taale ca Jolof ak alhaji Daawuda Dia maamu Alioune Dia moomu ci sunu garaaw bëgg naa sama bis boobu may woote ca woote lu ma ko kenn ku mu rasulullahi salaatu wa salaam ñëpp fekk si ma waxuma Jolof waaye le monde entier l'Afrique l'Europe fépp tey ci Tiwaawan nit jóge na fa ci réew yooyu ñëw ci sud yu Ibnu Alaaji Mansour ziar ko ba noppi rek ni lan ni noo ngi ne guddi gu mag gi rek mooy guddi sang bu tedd bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jumaam ci jumaa yëpp ci biir ولكن لاتري تي كان لجوغي سي سونو باي سيدي ابو بكر سي خليفه بو تيد بارا دي الله تعالى اكام اك ركام جي الله يي نغي ديغلو بول مي جاي فم كادو دي باي كو في تي ماكي تابلو تشابي خال وجم تي بول مي جاي فم ادو مام يو باخ يا كوبا سيك تي سيدي جيمين بيتي بروم دارا جي بروم لو تك بشي سيدي احمد تيجان المكتوب اكام اك سيدي عبد الله العبيد جاكيو اجوايب ci dëgg-dëgg lettre yi fii lu jóge ci Tiwaawan kon jumaamam ji sunu bàyyi alxaaji Abdou Aziz door ko yokk tegoon premier xeer ba yéene waa kër gi yépp kër Seex Alxaaji Maalik moo doon nu yëkkati jumaa ji yàlla nag teg ko ci loxo Seydi Aboubacar ibnu Alaaji Mansuur yaru ko yàlla may gudd fan yàlla may ko wér jumaa ji nag dafa am yu xam ni Abdoul Aziz maam faama dana ko wax pour képp ku ci def sa dërëm nu jëme ko ci jumaa ji bala may jox kenn parole jërëjëf mbokk yi ci déglu sëñ Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidianes jóge ci ki nga xam ne moon yor jamaatul nuur al sunniya kuréel gi saytu liggéeyu jumaay Tiwaawan Makhtar Cissé ñooy ñaan bépp taalib bu ñëw ci kamo gi nga jën ci pins yoo pins yi nga xam ne mi ngi ci biir saal bi am nañu sol yu bleu ak ñëpp di ko jaay 5000 francs la ñu wecc ko wecc ko pins yi ñu ñaan képp koo xam ni ñëw nga fi jën ci pins yi yal na nu ànd ak yow ak sëriñ bi ubbi jumaa ji incha allah kon pins yi mi ngi ci biir 5000 francs la ñu koy wecc ko loolu mooy information bi sama njaay laaj léegi nag ki xam ne mooy jàng message u sama turo doomu turandoo la xalif général Tijaani xam ngeen ko ak sunu baay alxaaji Abdul Aziz xam ko ak njabootu maam Cheikh Sidi alxaaji Maalik yëpp di alxaaji Maxtaar Kebe moom ci boppam nag message u xalif général Tijaani Sidi Abubakar ibnu alxaaji Mansuur moo koy jàng Sidi Mouhamadou Maxtaar Kebe bisimilah Hadj Malick fi mu jaar ak gàmmu fi mu jaar macha allah mhm. macha allah muy lu am am solo xam nga ko Mansour Mbaye li ma koy wax damay faral di wax moom histoire la ci gën a neex mooy maa fekkee maa fekkee lépp da koo fekkee mel na nag kii bëgg a jël kàddu di xaaj eh, Pa Maxtaar kii moom mooy indi message bu xalifa bi tabaarakallaahu kon euh, muy message boo xam ne bu jar déglu la boo xam ne buñ paree mi ngi koy def ci arab def ko ci wolof incha allah taala suñu mbokk yi jógee buldaanul arab mu ngoog ak mboolem ñëpp ñëpp mën cee jëriñu incha allah kon ñu jël ñu jox déglu Pa Maxtaar kii ان شاء الله دينا ak tam waa corps diplomatique bi yëpp incha allahu taala Pape Makhtar Kébé جذب القلوب لعلام الغيوب بسم الله الحمد لله الذي شرف الوجود بطلعة خير البشر مظهر لطف الله وعين الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وقرة أعيننا ونور بصائرنا وأبصارنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة تعم آل بيته وأصحابه وخلفائه الذين آمنوا به وآزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون صاحب المعالي وزير الداخلية السيد أنطوان فليكس جوم ممثل صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السنغالية السيد ماكي وجميع أعضاء الحكومة المرافقين لمعاليكم أصحاب المعالي ممثلي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذه المناسبة الكريمة وعلى رأسهم السفير صاحب الجلالة المعتمد بدكار أصحاب السعادة سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين بدكار أصحاب المشيخة ممثلي المرجعيات والقيادات الروحية في هذا البلد المحبوب صاحب السماحة السيد محمد باروسي ممثل الجالية اللبنانية المقيمة بدكار أصحاب السيادة ممثلي الجمعيات والحركي والحركات والتجمعات الإسلامية أصحاب السماحة ممثلي الأحزاب السياسية والحركات النقابية أصحاب السيادة أئمة المساجد والجوامع والزوايا وحلقات ومجالس الذكر والكتاتيب القرآنية والمقدمين ورؤساء الدوائر ضيوفنا الأعزاء القادمين من مختلف البلدان الإفريقية والأوروبية والأمريكية وغيرها من بلدان العالم أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لفرصة سعيدة ومناسبة ميمونة ينتهزها المسلمون والمسلمات في كافة أصقاع المعمورة للاحتفاء والاحتفال بذكرى ولادة خير البشر سيدنا وحبيبنا ومحل أنسنا وودنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة الخالدة التي ختم الله بها الرسالات السماوية كلها فكانت رسالته تلك رسالة شاملة عالمية تضمنت الخلاص الوحيد لما تتخبط فيه البشرية من من انتكاسات وويلات وفتن ومحن وأوبئة وأمراض قلبية وروحية واجتماعية وإقليمية ودولية حيث تمكن الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلال فترة وجيزة بتأييد من ربه بإقامة دولة راشدة شعارها الإيمان بالله رب العالمين وتخليص الإنسان من العقائد الفاسدة والقيود والاغلال التي تكبل الانسان وتحول بينه وبين العيش السعيد الذي يرتكز على مبدا الاخاء والحريه والمساواه والعدل الاجتماعي والتضامن والتكافل الاجتماعي والتعاضد والتعاون على البر والتقوى ايها الاخوه الاكارم ان الاحتفال بهذه المناسبه المباركه والحافلة بالأمجاد والبطولات والأنوار والتجليات هو الاحتفال حقا بالإسلام والمنهج القويم والهدي المستقيم الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لإسعاد البشرية وتحقيق إنسانية الإنسان وربطه بمولاه ربطا وثيقا محتما يفتح له كل الآفاق ليزداد إيمانه ويطمئن قلبه وينشرح صدره وتنشط أعضاؤه للعبادة والطاعة والولاء للخالق الحنان المنان الذي لا يرضى لنا لا يرضى لنا إلا الخير والسعادة والطمأنينة والأنس بالله رب العالمين يقول مولانا الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه في إحدى قصائده التي مدح بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد خير مبعوث حوى شرفا باب الاله لماضي الخلق والاتي هو الرسول الذي عمت رسالته كل الانام بلا شك وريبات مبوكي نيجي لين نيو دي لين زياره ان شاء الله ديسكور بي سيرن بي داف موي خليف جنرال دي تيجان بروغرام موغي شيخ عبد الحميد ان شاء الله دا نكو امبريمي tasaare ko ci tubaab ak ci version arabe bi ndax dañoo xam ne temps bi gudd na suñu bëggee jàng arab bi yépp danañu jëral temps ñu ne woon nañ ko jéem a tënk fa tabaarakallaahu ndax nit ñi mën koo jariñoo sëriñ bi nee na mbokk yi gàmmu ren gi shiaar bi moo di wa quulu linnaasi xusna nangeen ngeen fexe ba bu kàddu doo di dee jóg ci penc mi na nekk kàddu gu yiw kàddu guy defar mbokk yi nit danga ko jam paaka wala nga tiire ko fetal wala nga jam ko lu mën a doon mu gaaw dem hôpital docteur yi taxaw jàppale ko faj ko ba léget ba moo ciy des ku mu wanul léget ba doo xam ne kii amoon na lu ko jam mais mbokk yi kaddu gu ñaaw di nit di yëkkati di ko teg ci deru nit bu kaddu gi xasee ba jóg rëcc na la la waykat ba wax ne sinani sinaani laha iltihaamun wala yaltaamu maa jaraxa lisaanu nee na xeej man nga ko jëm nit mu wér ba léget moo fay des mais làmmiñ lu mu xas ba jëm kenn mënatu ko récupérer yàlla bi muy yebal sayidana Muusa ak mbokk ma Haaruun jëm ci ko xamne mo gëna kacior a ñépp ndax dafa taxaw ne moy yàlla bam mu leen di yabal daf ne idhaba ila fir'aun innahu tagha wa fa lahu qawlan layyinan laallahu yatadhakkaru aw yakhsha ki ngeen di dem beew na de dem na bay wote na moy yàlla mais bu ngeen demé comme que famu tok place la bo xamne reyna ci mom nawna jëfëm su ngeen de wax ak mom sen kàddu na noy نرثتيو يلا وخدني وقولوا للناس حسنا سكات دم بي جيب تي بنتي مي كو وات با مو رافيت نغن كو يام اول ما جاي فيم دو بلس كين لولو موي تمو غامو غيرن سيرين بي نينا كون ميغي سوكانديكو تي ديفيز بوبو ولا سلوغان بوبو دي وقولوا للناس حسنا مو بك ييكتي اي كادو تي اوكازيون بيغا خامني سونو مام شيخ الحاج مالك رضي الله عنه يلا نكو يلا فيل mbokk yi ba àddunay tukki ila an yarita allahu al arda wa man alayha ba yàlla di éclipsé mboolem kawaakib yi wal nujum wal majarat wal majmuat alchamsiya dara dootu fix ba keroog àdduna bi tukki mbokk yi nee naa leen wa salliyan ya ilahi wa jiziyan abadan anna muhammadan al muxtaara fi lqidami asamaan ak suuf di jokkaloo di ko kañ garab yi di ko aw ndox yi di ko aw montagne yi di ko aw dara jey bam Cheikh Al Hadj Malick ak ay maratibam ci walu yàlla di yek di gën di yek di gën di yek du wàcc mukk yàlla nañ ko yàlla fayal ah am ci lo xamne dañ koy sante yàlla waye ñu jaarale ko ci jëm yaakaar naa ne ñi fi ñi nekk ci tànt bi war nañoo mën a ànd ak man gëm li may bëgg a wax cofeel gi ñu am ci sallallahu alayhi wa sallam yàlla jëmbat ko ci suñu xol yi sallallahu alayhi wa sallam dem ba gënal ñu sunuy jëmm gënal ñu sunuy ndey gënal ñu sunuy baay gënal ñu sunuy njaboot gënal ñu sunuy sëriñ cofeel googu ñu am ci sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bu ñu demee ba di ko tàqamtiku yàlla nga ko jaarale ci boroom parasol bi nga xam ne bii nee nañu ragal naaj ragal naaj taxu ko yore palas parasol bi waaye symbole la ñi mu am ñëpp dugal na leen ci biir parasol bi kon bu ñu demee ba gàmmu agsi fii mu agsi àdduna bi yëpp du gàmmu ca dëgg-dëgg ku soxorul ku soxol feebarul bu ñu nee gàmm Cheikh Al Hadj Malick maam Cheikh Al Hadj Malick nag bi mu wootee gàmmu daf ci daf ci daf ci dafa daf ci laxas dafa am lu mu ci laxas waaw mag ñi seen lépp dañ koy codé maam daf ne kaay leen ngeen ànd ak man ñu gàmmu waaye charte bi mooy bu leen ci dugal lu ci bokkul lépp luy niru caaxaan wala muy niru fo bu mu ci bokk jigéen ñi bu ñuy ñëw nañu sol lu jot nañu muuru li ñuy sol bu mu seere bu mu dang bu mu yaraax ndax la femme musulmane dafa am nu mu war a solo am nu mu war a comporté wu góor ñi ak jigéen ñi bu ñu jaxasu loolu maam Cheikh Alhaaji malik daf cee insister bañ ko laajee ne ko si comme que dañu nekk ak yow di wut yàlla dañoo bëggoon a xam lan moo la naqari ak lu la neex mu ne malik amul lu ko neex amul lu ko naqari lu lu neex yàlla wala loo xam ne dafa naqari yàlla bokk na ci li ma neex man malik mar mu mag mu toog ay xale wër ko mu leen di jàngal xarafi alquran kooku su ma mënoon man malik maa koy yore léppam bokk na ci li ma naqari man Malick toog ci sama ëtt bi fii dégg baatu góor ci jigéen ñi man Malick fekk ma fi ma toog nga jam ma paaka ci xol may kaddi kaddi ba wuy ji sama boroom moo ma gën a woyofal dégg baatu góor ci biir jigéen kon kooku follul fowul folluwul kon kuy gàmmusi na nga xam nooy gàmmuse su ngeen ñëwee tëdd ak nelaw indiwu fi kenn daayira yi fédération yi nañu fexe ba organiser wu ci wàcce ay kaamilu alquran def ay xalaqaatu wa majalisu dikr tudd yàlla jàng alquran togg jox nit ñi ñu mos xéewlu suturlawu ku ci man ku ci tane sa moroom nga yëkkati loo ko jox nga dimbale ko ko ngir yàlla mbokk yi loolu mooy tax du jële ci tiyaabo baatu discours bi sëriñ bi def nag comme que arab bi dafa gudd dañ koy tënk ci point yi benn par benn pour mën a gagner du temps bi ci njëkk maam Cheikh malik Hadj Malick nee na gàmm mooy ñun ñëpp ñu ànd bëgge diina l'islam bi nga xam ne yàlla moo ñu ko jox jaarale ko ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te avant l'islam di ñëw ñun ñëpp ci ak ceddoo la ñu nekkoon temps bi du ko maye mais yàlla moo ko wax wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin jaamu xërëm ku man sama morom duma jël nit ñi daf leen ay jaam daf leen ay mbaam ngonk di nangu seen alal jigéen ñu di ko donnante jigéen amul cër ci benn côté ci pénc bi du wax bokkul dañ daan jël doom ju jigéen gas ba mu xóot ñu dugal ko ci biir ndax ne nee jigéen dafay indi gàcc bi lislaam ñëwee mu dindi loolu yépp mbégte moomu nag moom la gàmbu di symboliser bi ci tegu man xalifa bi nee na mu ngi ñuy dénk ñun ñëpp mbokk yi nañu ànd bàyyi yàlla xel waaw nañu ànd bàyyi yàlla xel yaa ayuha alladina amanu taqullah nee na yéen ñi gëm yàlla yéen ñëpp dangeen ngeen ànd ngeen ragal yàlla def ay ndigalam te bàyyi ay tereem suñu ko defee sëriñ bi nee na mbooleem fitna yi ñu nekk ci biir réew mi àdduna bi yëngatu crise yi di gën di bari feebaru xol yi di gën di bari buñ ko defoon rek mbokk yi yooyu yëpp dana wàññeeku la woykat ba wax ne fa taq wallahi maa jaawarat qalba mriin illa wasal ku bëgg a àgg ci yàlla da nga fexe ba ragal yàlla li la yàlla sant nga def li la yàlla tere nga bàyyi ko xalifa bi nee na nañ ci sax bu baax a baax bu njëkk bi sëriñ bi nee na mi ngi woo mbooleem autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi te yàlla baaxe leen jël mbiru réew mi teg ko ci seen loxo Sénégal jikko yi wàcc na bu baax a baax a baax a baax ci ndaw ñi ci lenn ci mag ñi euh, toll na foo xam ne ku am xel mu rafet da nga tiit sëriñ bi nee nañ ñu ngi interpellé gouvernement bi ak autorité yi nga xam ne ñoom la yàlla jox kilifteef nañ ci dugal seen loxo lu ñu mën ci jéem a yar njaboot ci bañ leen a bàyyi rek ñu nekk ci mbedd mi euh, ñu fexee ba fat leen bañ leen a amna ko xamne mi ngi def ta xamul amna ko xamne mi ngi agir fek dafa amul le Cheikh al hadji abdul Aziz waxon radiyallahu anhu 1952 ci ben terrem bu mutalif neena bari na koy ciow te fek dafa mosul buñ bu fexe woon ba ñëpp mos rek jamu am kon kilifa gi neena na nañu bàyyi xel ndaw ñi jàppale leen bu baax a baax ci seen walu njàng ci seen walu yar ci seen walu emploi bi ci tegu moo di ñun ñëpp nañu yëg ni am nañu responsabilité bu mat sëkk ci suñu njaboot bu kenn démissionné ci sa njaboot Mawlana Cheikh El Hadj Abdoul Aziz radiyallahu anhu benn mbokk daf ma masa laaj yenn jikku moo la gën a neex ci moom ma ne bu njëkk bi mooy du geddi nit loo taq-taq loo tilim tilim Cheikh El Hadj Aziz xajoo na la boo defee njaajaan ci suba gi mu wax yedd su ngoonee nga defaat jaral la ko làmb poosam lu ci nekk ci alal mu jox la ko baalu la xaq mais du la gedd du la dàq am sutura itam nag loo séq ak moom su génnee yaa ko génne mais du génne ci làmmiñam kon sëriñ bi nee na nañu bàyyi xel responsabilité yooyu ñu tàmbali ñun ci suñu bopp yar suñu njaboot état bi jàpp lañ ci lépp loo xam ne dafay yàq njaboot na ci état bi taxaw am na ci ay sachet yu ndaw yoo xam ne sàngara lañ ciy def di ko jaay ci ay barab xale yoo xam ne ñu ngi doon a juddu di ko naan nee na loolu dafay yàq penc te dafay tas réew nañ ci taxaw bu baax a baax baax bokk na ci point yu juróomeel bi moo di sëriñ bi nee na nañu xam ne naqar bii ñu nekkee problème yi ñu nekkee crise bi bii ñu nekkee dara waralu ko lu dul dañoo bëgg a doxal adduna rocc ci loxo loxol yàlla yàlla mi bind asamaan dama koy bind ñun fekkewuñu xamuñu tëral ay yoonam ñun ñu ñëw am ay poli ci wàllu politique ci wàllu système ci wàllu idéologie ci wàllu xalaat li ñu bëgg a doxal te du Sénégal rek daanaka àdduna bi yépp la dem nañu ba li ñu gëm mooy laïcité nañu doxal àdduna séparé diine ak wàllu état génn ci loxol yàlla génn ci loxol sayyiduna muhammad alayhi salatu wasalaam nga xamné ñaar fukki at ak ñett la dundu diko yàlla yonne 40 ans tek ci 23 ans 13 ans yi mu def ko màkk 10 ans yi mu def ko médine période bu gàtt yàlla dimbal ko mu taxawal dawla rashida état bo xamné dafa teggu ci yoon kenn du not kenn kenn du nax kenn sang bi daana xëy sahaba yi xam ne amna ñu am doole ñi amul doole mu ne dem leen seen kër ku ci nekk la fa nekk nga indil ma ko am na ñu am barke indi 10 tonnes ñi indi 5 tonnes am ñoo xam ne 1 kilo la ñu am bu dikkee mu set espèces yi mën a ànd yëpp mu mélangé ko su paree mu partagé leen ko ñoom ñëpp ñu bokk ci yem ñi amoon nag ñi amul mën nañoo toog weer wala ñaari weer kenn du yalwaan kenn du tàllal loxoom naan jox ma lu ma dunde mbokk yi islam diine solidarité la fa tabarakallah kon sëriñ bi na ñu fexe itam mi ngi lancé état bi fexe ba li ñuy tudde al adala al ijtimaia la justice sociale ñu fexe ba jéem ko instauré ci dëkk bi ku tooñ ñu xam ne dangaa tooñ ñu teg la ci yoon koo xam ne kii tooñul ñu bàyyi ko ak liberté am librement Seydina Omar daana wax ne mata staabadtumu nnaasa wa qad waladathum ummahatuhum ahraara kañ ngeen bëgg jël nit ñi daf leen ay jaam te bi ñuy génn ci seen biiru ndey ay gor yu set wicc lañu ñu woon bi ci tegu sëriñ bi nee na mi ngi ñaan ñi nga xam ne dañu nekk ci réseaux sociaux yi di yëkkati ay kàddu yu ñaaw di saaga mi ngi leen di ñaan ñu bàyyi ko amul njariñ bépp gémmiñ goo xam ne baatu laa ilaha illallah mi ngi ci génn boroom amul sañ-sañu di saaga saaga ko yiw doo ko def saaga ko fonk sa ndey doo ko def ko fonk sa baay doo ko def bi ci tegu sëriñ bi nee na mi ngi ci ñuy woote ñun ñëpp ñu jël mabda ut tasaamux tolérance alayhi salaatu wasalaam mas naa toog ci këram benn kër soxnaam احدى سيدات بيت نبوتي في متوك عندك صحابي عليه الصلاة والسلام من يفات تي قدام بقي صحابي دنكو بقول بني توك يك موم كن دو بغا جوك بوي جاب دنيو دك ندوخ مي سين لوخ فخه با ووت فين يوبو سين بني ديمي كو سي سا ولا مو ام جاخلي ني لا تي ندوخ ما nga nan wala nga rayu da ngay daldi wir tisrasi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam suma sa na soxna yi dañ daan dëkk ñaq wi boole kook seen parfum ndax mu gën a neex alayhi salaatu wasalaam waaye cër bi ko yàlla may yépp sëriñ bi nee na nit ku tolérant la woon toog na ci biir jàkkaam benn waay ñëw bëgg a gaanu waay ci biir jàkk ci saxaaba yi bëgg dal ci kaw mu ne bàyyi leen ko dafa xamul li mu fi tuur li mu fi saw sobe la mais cosaanam ndox la woon kon jël leen ndox ngeen sotti ko ci woowaa ji ba mu ñëw mu ne ko bu ëllëgee soo bëggee gaanuwaay da ngay laaj fan la ñuy gaanuwaaye mais fii néegu yàlla la xam nga ne kooku tolérant doon waaw fi mu toogee ci benn kër soxnaam beneen soxna bi yàkkal ko mu teg ko ci bool fi mu ko téye soxna yi nañ ma baal jigéen ñi dañ xaw a fiir soxna si daal di mer fil ndaw fil ndab li li ci nekkoon tuuru alayhi salaatu wasalaam muuñ ne dajale leen ngeen lekk kulu gaarat ummukum seen yaay dafa fiir di ragee ko jàpp mais du dara dajale leen ngeen lekk loolu soo ko defoon Abdou Mbaye tey dana di ba jolli fan lay mujj mën nañoo dem ba sëy ba yàqu dafa muuñ ne dajale leen li ci nekk ngeen lekk seen yaay dafa fiir sëriñ bi kon nee na nañu tolérant violence baaxul waaw naqari deret baaxul te góoru Sénégal nag loolu mooy problème am naqari deret danga ci gis ñoo xam ne 2000 francs la ñuy joxe bëgg ci ceeb bu jën bu fatt tàkk waaw mënul nekk mbokk yi bi ci tegu ci point yi nga xam ne moo nekk ci discours xalifa bi bi ci tegu moo di mu ngi ñaan ñu war naal suñuy kilifa yi diine nit day mal kilifaam damay dégg ci Cheikh El Hadj Malick Sy Maodo muy wax ne nit dafay ñaanal kilifaam kilifa dana boof ci ay xal mu di ko lakk te rus na ko njàmbat waxantuma la rus naa muy ñuutlu bugul sax ku ko xam bu ko defee kilifa yooyu nag ñu warmaal leen xam na li leen yàlla def teg ci seen kaw diis na lool ñu ñaanal leen suturaal leen ku ci am sa kilifa nit la comme yow mën naa juum su juumee nga ñëw wax ak moom ne ko man kat su ma sañoon nangam ak nangam waaye dem ba war ma amatul kilifteef amatul réew mu mel noonu pour mu émerger wala mu jëm kanam mbokk yi du yomb xorandoom yi sax bu ñuy ànd dañuy am kilif bi ci tegu moo di mi ngi gën a soññ état bi ba tey mu dimbale baykat yi réew mu bëgg a dox il faut mbay man naat ndox mi ñu nañ ko àggale ci àll bi ñu jàppale baykat yi ci wàllu jiw jàppale leen ci wàllu engrais waaw yi nga xam ne ñi ngi koy joxe li ci ëpp ci tracteur yi ci loxo borom barke yi lay nekk mais baykat yu ndaw yi duñ ci jot سرين بنانا نانيو فخيب با كوران بي حق تي ريو ميب نانيو فخيب با بوست دو سانتي ماتيرنيتي يي اوبيتو يي نتاس تي ادونا بي ييب نتاس تي ريو مي ييب باكو فيبر جاراتول غي نيو داكار ريجيون باغا نيك داكا مان فاتيو نينا يتم ميغي نيان ايتا بي لوم مانك lu mën a taxaw rek na ko taxaw ci créer environnement boo xam ne jàmm rek moo ci am ñu nekk ci nguur gi ñu nekk ci opposition ñu bokk toog waxtaan ndax réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te dialogue rek moo koy doxal du ay kurpañ du ay saagante du violence du taal dëkk bi loolu du faj dara mbokk yi il faut que waxtaan réew yu mag yi nga xam ne dañoo xeex xeex xeex xeex ba amatuñu dañoo mujj toog ci table waxtaan bañ waxtaanee jàmm ne ñooy kon sëriñ bi nee na mi ngi ñaan waa réew mi ñëpp ñun ñëpp ay responsable lañu kullukum raain wa kullukum masulun an raiyati ñu joxante loxo soppante génne li ci biir xol yi waxtaan ñu jiite ak ñu ñu jiite suñ ko defee rek incha allahu jàmm dana am dasaa dégg ci làmmiñ ñu bàyyam cheikh alxaaji abdul aziz mu ne ànd ñaar a koy yàq laaj loo xam ne mën ta nekk ak bañ loo xam ne mën na nekk benn baaxu ci sëriñ bi nee na bi ci tegu moo di mi ngi fàttali di fàttali boppam di fàttali parlementaire yi nga xam ne ñoo nekk assemblée nationale toogal fa réew mi toogal fa nation bi nañu bàyyi xeex bi ci biir assemblée te ñu joxante loxo nekkal fa nation bi di leen jàmbatal su ko defee li ñu bëgg danañ ko am mbokk yi lii daal mooy laxasu discours sëriñ bi li ci des Cheikh Abdoul Hamid dana ko imprimer bu arab bi ak bu français bi jox ko ñëpp li ci tegu li ci sës moo di mi ngi sant mboolem kilifa yi fi teew yëpp waaye mi ngi jagleel cant itam saaxibul jalaala nga xam ne at bu nekk mu yónnee une forte délégation lu fi mën a xew rek dana ko dana dana ko bàyyi xel bokk koog ñun sëriñ baa ngi koy sant bu baax a baax a baax mbokk yi pour bañ a guddal ñu yem fii wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, fa tabarakallah mu discours bu ama am solo fa tabarakallah xam naa ci ñëw ci bi ñuy allah ci wàllu commentaire yi. Mm-hmm. Euh, macha allah discours bu am na solo. am na solo te. waxal na njaboot. waaw yéeg na ni am na ci loo xam ne fële yu bëllix achahid min ko que réew mi réew jikko la. dañ mhm. ci delluwaat. waaye ñaan na nguur gi. surtout wàllu baykat yi. ak ci fànn yu bari. fàttali na leen ni. في نجابور جيلن في نكال ما نقول الدول لي يوم عندك نيوم بارك الله تلون لن يخاري كيلن ما شاء الله خم خمنا خم نشور من يبغي دوحك عبدو ميس اللي انتريز دلين ما شاء الله لخو أم لخو كيوبتال بريتولي سورباي الحاج عبد العزيز موات جوغي ميشو نجم مفن نركو فوجم من دمي دم سيدي ابو ابن الله جمال سو ndax lu jullit yi surtout Tiwaawan ci moom la dal damay dem masu ko ci li xam ni xew na ca Tiwaawan dajale ñu safaan bi ne daloon seen kaw fii waxtaan ak ñoom defal leen ak lan mu ñëwaat fi te loolu matul deux mois trois mois ñëwaat fi ñu ni ko lu xew mu ne damay dem ca centenaire u maam Cheikh Sidi Alhaji Malick radiallahu taala anhu gis Seydi Aboubacar ziar ko dem ca rawdu maam Cheikh Seydi Alhaji Malick ziar ko dellu siwaat rek waxtaan ak sama mbokku jullit yi muy ñaari voyage bi ci des barki démb la fi jóge lu xew mu ni damay dem Tiwaawan ziar Seydi Aboubacar xalif général Tijani dem ziar sama maam Cheikh Seydi Alhaji Malick ñëw wax ak mbooloo mi digganteel rek عكسيني أبو بكر خاب جرال تجاني بوب السيد ابو بكر ديقول خاب جرال بوب موم تي بوبم لا بابا ممشي لا ديقول مو بايوكو مو مبايوكو با تاي لولو موي دوخ في تي تواور الشيخ احمد تيجان ال مكتوب واخون سيدي محمد منصور بروم ني واخكو سيدي عبد العزيز العمين واخكو لولو موي دوخ toujours تي تواور بو نيوي دون واخ بوكو نو lolu moy Tiwaawan instruction yi xamni ni Seydi Mansour ibnu Alhaji Abdoul Aziz ànd ko ak rakam ak domam yi di kan di Moustapha simi tok ibnu Seydi Abdoul Aziz ak Habib wax li nu bëgg yëpp ci gàmmu gi wax ko ministre de l'intérieur diko li nu bëgg nga waxal di ko président de la république mom ci bopam ci yaram ci tegginam

ku defal loolu il faut que gërëm ko kon ñu gërëm chef de l'État président de la République gardien de la constitution mu jox nag institution kii xam ni lu muy déglu dégluwul kenn dugul lu ko chef de l'État wax mu applique à la lettre nu féetali ko nag ak diine ji yaram ak tegginam nag addina bi yëpp ak këru diine yëpp ak lislaam bi yëpp xam loolu ci moom nous sommes un gouvernement laïque Nous nu rek noo ko xam ci nous, ak ñi xam sax bokk na suñu diine kon monsieur le ministre de l'intérieur vous avez la parole. jërëjëf sëñ Aji Mansour bismillahi rahim.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 teew qui ci eut bu sel bi di sët di ëttu Seydi Hadj Malick Sy ak délégation bi nga xamanteni son excellence monsieur le président de la république Macky Sall mo ñu yabal ngir ñu téwal ko fi ci bisu gamu gi wax nañ ko légui ma ngi and ak le ministre bi nga xamanteni mom moom la wàllu sport bi muy yankoba Diattara mu dend ak le ministre bi yor wàllu tiada bi. yene a diglu bawul Baol Média FM kaddu gi di bayiko fi ci mbacke tablo tiabi xàll wa jëm Touba. Baol Média FM nga xamante ni yor artisanat ak transformation secteur informel muy Pape Amadou ndjay waye ñi ngi and tamit ak le ministre biram fay muy ministre auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité de proximité et de la protection civile. bi ñu le gouverneur de la région de Thiès le préfet ou Tivaouane fekk nañ présidente conseil départemental de et le maire de ñew nañu and ak ño xamanteni dañu bok ci kër gi waye tamit and ci délégation bi muy le secrétaire général adjoint du gouvernement Alioune Badara Diop ak le secrétaire général du ministère fonction publique muy Mohamed Diop ak Directeur généraux yi nga xamanteni ni tudd nañ len légui nous mën le directeur général de l'AGTIP et Hadji Malick Gaye ak FERA Nous fekk fi tamit ñi l'Assemblée assemblée nationale du conseil économique social et environnemental et tamit au conseil des collectivités territoriales nous nuyu bu baax di le ci son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ngir mu jotulil ñuko Serigne Babacar si Mansour kon Serigne Mansour si Dabakh ñu ngi jël nuyo yi gëna sel sell yi gëna sel yu bawo ci son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ngir nga jotulil ñuko Serigne Babacar si Mansour di ñaan yalla yok yàggal ko fi ba naal yi nga xamante ni amal na ko maamam yépp yàlla sottal ko te mu ànd kook président de la république Macky Sall ànd kook njaboot gi yépp ñi ngi ziyaara tamit ak di nuyoo mbooleem rakki sëriñ bi di nuyoo ay doomam di nuyoo képp koo xamante ni sëtu Seydi Hadji Malick Sy nga di nuyu muxaddam yi di nuyu mbokki taalibe cheikh yi waaye di nuyu tamit ñi bawoo ci këru diine yépp ñëw teew si ci bis bi te ñu lim leen léegi te ñun ñépp ñu bokk jëmuwaay mooy bokk ànd di fàttaliku gane àdduna seydina mohamed alayhi salaatu wasalaam gàmmu nag ñi ma jiitu ci kàddu leeral nañ ko léegi ñu ràññee ci waxu sëñ abdou hamid ak sëriñ moustapha waaye tamit ràññee ci fàttali yi nga xamante ni sëñ Pape Mactar Kébé def na ko ci li waral gàmmu mooy dëdi bis boo xamante ni wàccuwaay bu kawe la am ci bépp jullit ndaxte ci la suñu borom wàccee yërmandeem ju rëy ja muy Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam mu doon koo xamante ni ñëwam yërmande la ñëwam mottali mbaax la waaye mottali la tamit jikko yu rafet ni mu ko waxee waxal na boppam ni sans borom dama yónni ngir ma mottali mbaax mbaax yi fi jiitu woon ak jikko yu rafet yi fi jiitu woon kon fàttali guddoo guddi gi mu ganee àdduna day mel ni fàttali ña ko jiitu woon la ci ay yonent waaye fàttaliku lépp luy baax te boole doomu aadama yi la ba tax na universalité message boobu nga xamante ni moom la indi suñu maam ju baax ji Seyd Aji Malick Sy radiallahu taala anhu di ko perpétuer ba ñii nga xamante ni la fi bàyyi tey ñuy wéyal liggéey bi njariñ loolu ak njeexital loolu lay am ci bépp jullit waaye loolu lay am ci bépp doomu aadama euh, Seyd Aji Malick Sy nag radiallahu taala anhu leeral nañ ko leeralaat ko te duñu noppee ci di ko leeral li nga xamante ni moo taxoon mu woote gàmmu moom ci boppam leeral na ko dafa waxoon ni dégg naa ñu ni dafa waxoon ni góor goo xam ni amul lu dul génn dëkk di ko wax ci génn guddi su sañoon ku mu am nga fekke ko ba loolu moo tax képp koo xamante ni amoon na ko muy muxaddam ak mbokk ci diine daanañu bawoo fu ne di ànd ak moom di teewe bis mu ci fàttali ak di ci suuxat cofeel li nga xamante ni jullit bu nekk war na ko am ci seydina muhammad alayhi salaatu tey nag wala boog gàmmuk ren gi xam naa bu ma doon euh, tout les droit d'auteur ou Serigne Mansour Si, borom daara yi di waajuru suñu xarit suñu Sopé, Serigne Habib Sy dañuy wax ni gàmmu ren gi dafa ala daw ndax li tax ñu mën ko wax moy dafa dépôt ak centenaire bi mu dëppoo ak centenaire bi bërki démb may seetaan tëjte burdu bi ma gis waxtaan wu am solo wu neex waaye wu am njariñ bu dox ci diggante sëriñ Mansour Sy jamil ak sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Mansour ak sëñ Sidi Ahmed Sy Al Amin Serigne Mansour Sy Djamil di wax ni dafa bindoon benn article mu am ku mel ni daf koy ŋàññi di ko tontu fekk dafa tuddoon l'exceptionnalité de Seydi Hadji Malick si am kenn ku ko tontu mel ni dafa am lu ci dingat bi Seydi Ahmed Sy Al Amin defee conférence bu rëy ba mu def ci te bi mu ni tontul nga ma waaye tontul nga sa maam li may wax ala Ahmed Sy Al Amin tontul na waaye centenaire bi tontul na boppam ndaxte bu fekkente ni téeméeri at ginnaaw bi suñu maam jooju làqoo dañoo gis ni mbaax tey la fi gën a sax xam-xam tey la fi gën a sax yiw tey la fi gën a sax diine tey la fi gën a sax Média FM daal kon la ci biir Bawal. cent ans wu la ans wu yiw la ans wu barke la waaye cent ans wu baatin la. loolu nag mooy gàmmu euh, son excellence monsieur le président de la république Macky Sall. Euh, Aj Mansour wax na ko léegi fàttali ko ñëwal na fi boppam ñetti yoon ku ne xam na diggameeg Serigne Babacar Sy Mansour ku ne xam na cofeel gi dox seen diggante ku ne xam na tamit taxaw bi nga xamante taxawaay bi nga xamante ni am na ko jëmale ko ci ëttu diine yépp waaye rawatina fii ci Tiwaawan ba loolu moo waral waxuma lim ñu yónni di ñu jugee waaye léegi bi ñu nekkee ci salle bi gis nañ may wax téléphone mu woowaat ma di ma feddali ak di ma fàttaliwaat yónnent ak yóbbante yi nga xamante ni yónni na ma ko ma jëmale ko ci alxadra almalike bi yépp mooy président de la république ni mu ko doon defee démb di ko def bërki démb noonu la ko nara a muy taxaw ci wetu xalifa bi ba lépp loo xamante ni sumbal na ko maamam ci dëkk bu tedd bii di Tiwaawan mu bokk ko ànd ak moom ba yàlla sottal ko wax na fii bi ñu fi ñëwee alxamis di ko sëriñ Mansour si tabaax euh, joxe idée bu rafet ci saa si mu tontu ko ni ko lu bokkoon la ci programme bi waaye dinañ ko accélérer te wax na ma ni naa ko fàttali fàttali ko baa mu waat ni centre formation professionnelle boobu nga xamante ni dig na ko Tiwaawan dina ko def ci ni mu gën a gaawee wax na tamit ni Tiwaawan insha allahu rabbi ñaari autoroute ñoo ko nar a seq am na autoroute bu fi am waaye am na autoroute buy ñëw jaar fii jëm ba Ndar te Tiwaawan gii la nar a jaar incha allah te ku ne xam na loolu ci perspective la buñ ci tegee hôpital de niveau 3 bi nga xamante ni teg na xeer wi te liggéey bi ñu ngi koy tàmbali ba approuver plan yi infrastructure sanitaire yi waxoon na ni dina ko yéegal ci niveau boo xamante ni

ministère de l'équité sociale, du développement communautaire et de la solidarité nationale. Nous xam nañ ni président de la république dafa am penchant Manam, FM maanaam xolam ak xelam dafa jëm ci képp koo xamante ni da nga néew doole wala da nga soxla ku la taxaw kooku ku xam président de la république jege ko and ak mom wala ngay nek ak mom bi nga xam ni loolu mooy yitteem suba mooy loolu mooy yitteem bëccëg loolu mooy

Mbuur Touba ba bii nga xamante ni nar na ñëw Tiwaawan boo demee tamit ci wàllu jiw bi noonu lay joxee ay instruction pour képp koo xamante ni war nga ci jot ñu jotale ci loolu mooy li nga xamante ni moom mooy vision muy gën a ndokkeel xalifa bi ci gàmmu gi ñu nekk di ndokkeel njabootu Seydi Aji Malick si yëpp waaye di ndokkeel jullit yi nga xamante ni yëpp ñi ngi Sénégal waaye tamit ñi ngi ci àdduna bi du ma mën a daaneel sama kàddu te nuyuwuma sargal ñi nga xamante ni dañ fi teewal seen réew muy le corps diplomatique tàmbalee ko ci ambassadeur u Maroc bii nga xamante ni xaritu Sénégal la xaritu président la waaye ambassadeur yi toog yëpp ak koor diplomatique yi toog yëpp ak yeneen banqaas yi nekk ci réew mi ak fu ñu mënti bokk ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara ci bis bu tedd bii nga xamante ni mooy fàttaliku euh, gane àdduna ngeen gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam kon sëriñ bi xanaa du ñu def lu dul ñaan ci barke guddi gàmmu waaye tamit ci barke Seydi Hadji Malick Sy nga ñaanal ñu sëriñ bi ñaan ngir président de la république sumb yi nga xamante ni am na ko fii ci Tivaouane waaye am na ko feneen tamit ci réew mi yàlla eggale ko ak jàmm yàlla def gën a dolli jàmm ci réew mi yàlla gën a dolli sutura ci réew mi yàlla gën a def li maam Abdou Aziz Sy Dabakh doon wax yàlla gën a tàppe xol yi te bu yàlla tàppee xol yi wërsëg wi gën a yaatu gën a wesaaroo ba ñëpp mën cee jariñu ñu ngi ñëw ci njeextalu nawet li ñu ngi ñaan yàlla lii nga xamante ni moo fi meññee yal na nawet bi àgg ak jàmm ñu góob ko ak jàmm muurloo ko ak jàmm yàgg fi fekk sëriñ bi di ñaan yàlla bu déwénee ñu fekk ko fi di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm ba déwén ñu fekk fi sëriñ bi ànd ak moom gàmmu gi ànd ak président de la république wéyal liggéey bi wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu mbokk yi ngeen baal ñu tuuti rek monsieur le ministre jërëjëf kàddu yi rafet na dañu la fekk ministère de l'intérieur dina fa yow réunion nationale timis jot nga dagg réunion bi ni nañ julli timis bu ñu paree ñu àggale nga ñëw fekk ñu Tiwaawan ñuy waxtaan timis jot ñu bëgg a dagg waxtaan wi te julli bismillah kon euh, imam dafa